Bravo! ay sew da koy kal dina ko daan fu mu jëm ak moom da koo bëgg a dawal waay lee waay lii lan la nii ci mbot <laughs> mbot mi mu ko mbot rëy na kii mooy kan mbër yow yaay kan mbër siyaar nañ la. tonor bu jur mbër foo jógee. écurie Lamsar. dama contact si rek. foo dëkk. Diourbel. fan ci Diourbel. Ndayane. ah Ndayane. mais li ngay def garaaw na de. non damay jàng rek damay kontaan rek. waa Pakala yaa andi kii la Pakala Senior. Ah, waaw waaw sama gànnaar waaw sama xarit la sama doomu laay la xam nga rek Tanor bu Lamsar. ah a dafa nekk CNG quoi a laal comme gars a sama waa ji xam nga di ko ñaan yàlla may ko ndam waaw Nafi Sall jaayoo waaw mbokk yi gaskel jàmme gaskel ziar nañ la. delloo naa leen ziar bu wër. gaskel tey da ñëw Adrien Senghor. waa tey damaa ñëw Adrien Senghor waaw. gaskel est que ren am na tournoi bu mu gagné gu. dégguma. ren am na benn tournoi boo gagné. waaw bu ma jógee sama combat bi léegi gagné gagné naa ay tournoi kay. waaw mais ci àll bi quoi. waaw maa ngi door a bëre Dakar lutte simple quoi waaw. àll bi ñaata nga fi gagné. àll bi jël naa ñaari nag jël naa xaalis tamit waaw. tey nag fas nga yéene mën nga jël Fiesta tey. waaw loolu laa bëgg de. foo toll nii. instant yaakaar naa ñu ngi quart de finale quoi waaw ñu ngi quart de finale mais damay ñaan yàlla rek may ma ndam bu sedd buy si kaw gars ma jël affaire yi. arène bi pare nga pour amaat combat ci arène bi ren. waaw pare ren pare naa pour bëri ay combat yi combat waxuma la benn komba waxuma la ñaari komba waaw. Zal taxawal wax ak ñun. Zal ziar nañ waaw delloo ziar baay bilaa Zal daa mel ne bi ngay mujj fii yaa ko gañe woon waaw waaw waaw loolu la yàlla def bilaa yàlla naa ko jëlaat tey ci kàttanu yàlla tey bi nga ñëwee tam daa mel ni yaa ngi ci course bi de waaw waaw waaw waaw yàlla baax na foo toll maa ngi si quart de finale yi nii xam nga ki ngay daje non xamaguma ko nag tirage guñu ko waaw waaw arène bi ren foo ci toll arène bi waaw maa ngi waaj am combat sax le premier avril ci kàttanu yàlla kan la amaguma adversaire nag inshallah waaw kan moo tëgg combat euh Dieye production wa amul ragal tey ni nga digg dafa dooy war Ablaye tey <laughs> Babacar santatina leen gërëmatina leen du ma sant Babacar seen liggéey rafet na ma leen gërëm a gërëm Babacar benn baat bi ngay bëgg dëgg chaque jour xeeb naa ko sama teewaay fii tey ñaari garmee ko boole muy Djilass Production ak Mbayang Loum denc suñuy wëllëre jóg rek ngir dundal lamb tey ñu tëgg lamb tudde ko mbayang luum Adama loolu lu koy dundee mbayang vraiment mérité na la ëpp loolu bu dee waxtaan rek a wax dëgg ci naxante wu ñu mbayang luum dafa nekk la ci biir xale séeréer yi ay mag ñoo ko uufoon ñu bàyyi ko fi mais xam naa ne mag yi ko uufoon koo ceewoon tey ne ko mbayang a ngi toj Sénégal duñ ko weddi ndax mbayang dafa nekk xale bu dëgg daaj xale boo xam ne xale bu silwise la xale bu a woy vraiment vraiment mbayang moom mérité na la ëpp lii waa jilaas ñi ko def nii sax eh, xanaa yàlla na ci yàlla jàppale rek luñ ci séntu ba di ko def yàlla ni ko yàlla defal. nga xam naa dinaa wàcc affaire bi xaaw a sadr moo tax ma kii nii quoi vraiment ñu ngi waajaat le 18 euh, février bii di ñëw nii avec sum production mënuma bàyyi nag te gërëmuma ki nga xam ne moom lañ tuddee woon bés bi passé nii mooy Angèle Fall ak Mbayang Fall ñoo xam ne ay xale yu baax yenu ay xale yu silwees lañu xale yu baax lañu vraiment bés bi nekkoon na bés boo xam ne bés bu réussite la woon te bu réussite la ñoom do seen loxo nekk na ci gërëm di gërëm nag waa Ligue TV avec Babacar parce que Ligue TV mu ngi mu ngi tëj dëkk bi waxtaan wax dëgg ja gars yi jàppatuñu télé ci YouTube bi lañ nekk di di di déglu euh, Ligue TV vraiment neex na xanaa di leen ñaanal yàlla rek li ngeen bugg ci lu baax yàlla ko yàlla defal. ndeysaan final ba ngong Mamadou Seck ak Alex Alex moon won ginnaaw Mamadou Seck ngeen jàkkaar lool ci Lutte TV point com première édition drapeau Mbayang Loum 4 février 2018 ñu nuyu ñëpp waa États-Unis waa France waa Italie eh Mamadou Seck jël na tànku jël na tànku Alex war na ko ndombo fu muy mujj ak moom Mamadou ak Alex Mamadou ak Alex na ko ndombo Alex lu mu bëgg a def prise Mamadou Seck Alex Mamadou Seck Alex da doon prise Alex da diis mooy Mamadou wër na la ndombo Mamadou Seck Alex wër ndombo eh penalty ci lamb Alex lii nga def la waaye daa mel ni Mamadou Seck dawal na ko daan ko Mamadou Seck daan na Alex da koo bay daan ko Mamadou Seck ngongu daan na Alex Mamadou Seck du na Alex Alex Sangongu ñi suivre Lutte TV point comme ñu ngi Adrien Senghor drapeau Mbayang Loum ñu gis fi tey Guinss Ndiaye dëkk Simal Guinss ñu ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi leen di fay di leen ziar di leen delloo njukkal. bëgg du ñaan defal Mbayang tey dafa rëy trop. Mbayang suñu jigéen la suñu lépp la te fu ma toll maa ngi koy bëgg muy guddi muy bëccëg yéen ñi nga xamante nag yéen a ko téye woon te def si li seen kattan. yal na leen si yàlla jàppale te yóbbu leen fi ngeen bugg a yegg Guess nag moom xam naa ne li muy wax chaque jour moom lay waxaat rek je me nomme le général de la nouvelle révélation parce que c'est Nelson Mandela qui est mon idole merci à bon entendeur salut ofun fog sereer de ɓaato saɗakinoox a ɓaato ndamtir kam den a koɓo mbindo ñaalna fo o yengola to ande adna o ten saxtu neen kiino kiin fo ke roog a ci'ooma fo na roog a citooma Guess o ndeɓandong o ke ndokna njom ne a nanda a jega lakas ka rokiidna kam ngel ne kon o kiin o kiin fo citna roog a ci'una kon jerejef nuun o fog seereer moxo sante'a nuun gidma nuun gidma o maages oxe te ref giran chauffeur fe in te na xoyel njame gidma i tamit Kathiase Ngor gidna Doudou Niane in Mbaye Euh, jaksiyin den fop moxo sante'a den to gidma den yasam me den mbadrogo yaal a ɓisa den maaga a jegana waagana xatlan yasam te fi'an in merci Lutte TV seen ngaso a soog gar a xot fop xaye a ñowan no Njom a ndef xa teɓanonga xa andoona xaye ga inoor bitim reew a ngar mene a ndamit Njom ne pour Njom ne paam nuun we andoona xaye nun i mba lay nun ndefu Njom xan mbaag o lay na Lutte TV pour den ñaanexin ta mbaag o paam i kaga ke waaguma layta ten refe yasam roog fe jegna to a doxin fad we andoona yee a jega ka te doxinna den yasam de ndamta den bo de mbad de mbad maaga roog a jega na waaga na xatlaan yasam te fi'an na den bo muxa den meɓeta njom rek yasam roog o yaase na fadna den ma jërëjëf Djilass Production ñu ngi lay ziare maa ngi leen di delloo ziar yéen TV. Djilass tey mooy sa ñaata journée. tey mooy sama première journée. Eh, mu nekkoon première édition Mbayang Loum la cantatrice Mbayang Loum tey mooy sama première journée te vraiment am naa ci fierté bu baax a baax a baax a baax a baax ndax ku toll nii Mbayang boo ko tuddee lamb mu nangu ko jël ñëw jox la enveloppe boo xamante ne sax ñeme enveloppe bi mu ma jox sax ñemewu ma ko wax nit li nekk ci biir ñemewu ma ko wax nit kontaan naa ci moom trop trop trop trop trop ba fi kontaan yem te di ko ñaanal yàlla fu mu bëgg a egg moom Mbayang Loum yàlla na ko fa yàlla yóbbu di leen ñaanal yéen waa Lutte TV parce que yéen amu leen morom affaire bi yéen la man maa ko wax man maay Djilass Production maa ko wax. parce que yéen depuis ngeen ñëw ba léegi ay xale bu ñuy bëre sax yéen ñëw ngeen pour assister ko pour pour jël seen kii donc ñun promoteurs yi amuñu leneen lu del euh, lu dul di leen ñaanal rek. woyul Boucar ci séeréer. ndiki ko wax ino simnang mexe jaaba nuun won ndokole ak na bes fene mexe xeda roku xatonten yasam tamalong amin amin waaw te koy re o drapeau mbayang lum xaye o nit o nita mbayang kata jeg i ɓeerna mi fo ten parce que mi fene ke na layaa fo kan maafrel bo xaƴ njom woktaam mbapes koy nda refeen xaƴ njom e mbayang a ref o kiin oxa andoona ande ku ta fi'aneena njom rek e a jaraan keke fi'anan ma xaye sax kan xeefin to bugaam i ndet ay édition édition mi xan ret fo ten stade xan ret fo ten stade keke ref première édition um vraiment yaa layan ma ten ka jal alame jege probléme doneten o ñuxur gidma o korum it Cheikh Faye parce que Cheikh a jaɓangiran ten fo xooxum jaɓkiran i um sooganga commencer a Njom koy ret bo e garid ta mbayang lum Njom o ɗaayo maak refu tookes maxey to num it gidma nuun nuun wa Lutte gidma nuun to ñaanana nuun ku nu yaasam roog a ci'na nuun gidma amateur ke nqetna meeke fop jagim ndabid den parce que xooyaam a den a ngara discipline vraiment a njaɓaam discipline jegim lakas koy ludul ñanana den amateur ke jegim ndabid nuun oxu refna amateur to ñowa njom mi dayam tokof to ñananam to dekam bay rek pour o ɓatam ñaan ndax keke rokuma roga dimla am teen bon waago ret i wax dëgg yàlla a mbokk yéen ñu suivre Lutte TV point com seetaanoon ngeen Mbayang Loum si Lutte TV point com tey nag am na ku mu langal wala ñaar tey ñu tuddee woon ko drapeau ki ko tuddee woon mooy Djilass Production waaye ki ngeen gis mu nekk suñ droite mooy Cheikh mooy borom këram Cheikh ñu ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi leen di fay leen ma Lutte TV. Jax production ngi nii ñëw na maa ngi fay waa Lutte. góoru mbay ak lum mu ngi nii. <laughs> bés Jax a ngi ne. Jax ñëw na <laughs> waa Jax toogal waa Jax ñëw na moom mooy le roi moom ci li simple bi mais Cheikh ziar nañ la. maa ngi leen doon ziar bu wér. Cheikh man li may jëkk a laaj fan la dëkk. man Fissel laa dëkk Fissel Mbadane. Mhm, waaw. Cheikh yàlla booleel ak Mbayang man bëggoon naa xam Cheikh ak Mbayang fu ñu xamante ci làmb ji wala fan. Cheikh ak Mbayang ci làmb ji lañ xamante. est-ce que Cheikh sëy ak artiste yomb na. non non. lan moo ci jafe. lépp lépp a jafe. non bëgg nga tojal ma si dara pour ñu xam. Eh, dafa am yoo xam ne kenn du ko li xew ci kër bëri ndaxte moom instant yi moom mu ngi fii te fi mu ne nii mu ngi waaj a dem euh, ba Gambie waaw fi mu ne nii mu ngi dem ba Gambie. mais seen nekkin yéen ñaar yomb na. daf lay créer ah? seen nekkin neex na. neex na trop neex na trop vraiment. neex na trop sant yàlla lafal cat. yàlla nañu yàlla musal ci baaxut. amul amul amuñu benn problème. moom bokkul si jigéen ñu dëgër bopp yi daa mel. non non non non non no non non. non non balaa muy def dara sax balaa muy def dara sax da may tàggu ak lu mu mënti nekk daf may tàggu balaa muy def dara ak fu mu mënti nekk nag waaw. kon loo koy ñaanal moom. gudd fan ak wér gu yaram ndaxte moom li muy def moom kenn du ko ci <laughs> waaw macha allah. kon léegi ñu tourné ci madame madame Faye Mbayang Loum bëgg nañ la. Babacar maa ngi di delloo bëgge ak delloo waat leen ziar aussi waaw. Mbayang ñu tuddee la drapeau Djilass tuddee la drapeau tey nga ñëw ànd ak sa borom kër ak say mbokki borom kër ak promoteur yi gis naa sax Jax si ñëw toog sa côté Mbayang lu mu yëg ci loolu frère am waaw kon <laughs> Jax nee na frère la magam la tey loo yëg Mbayang. Jax moom mag la. Euh, tey li ma yëg tey lu rëy laa yëg tey bu ma dee woon tey sax tàlli waa bu ma dee woon tey tàlli ndax drapeau bi man dama cee kontaan li dama ma gën kontaan aussi jour bi ma woowee ne ma am naa licence te damaa bëgg a def première édition drapeau Mbayang Loum euh, fekk man maa ngi jógee làmb laa jóge woon bay ñibbi euh, ay mardi la maa ngi jàll gaal fu bi ma ko waxee aussi dama egg waxtaan ceeg suma yaay ndax manit it suma yaay la am te duma def lu mu d'accordut dama egg waxtaan ceeg moom moom it mu gën a kontaan mu mel ni daal comme te koo xam kontaan ci ne ma am na ñu bari ñoo xam ne ñu ngi woy xëy na ñoom ñoo la jiitu ci woy téeméeri yoon te amuñu lii kon téye ko jàpp ko te fonk ko loo taxit man it bés bi daf maa jaral lu ne daf maa jaral lu ne tey bu ma amoon un million mbaa ëpp un million def ko ci ndax xëy na ki ko tëgg jaral na ma ko. te loolu yëpp grace à kii toog la à Jax wax naa ko Safir FM barke Dembo Ndiaye grâce à moom la moom bi muy tëgg euh, ku tudd El Hadj Dia dëkk Mbassis moo ma booleeg moom. yàlla def mu sàmm kolore googu sàmm kaddu yooyu ba joonu tey gii nii waaw sant naa ko ci ndax lépp moom la waaw ndax euh, bi mu ko woowee da ko ne am na benn xale boo xam ne mu ngi ci àll bi fii di woy ñii woy Dakar dàquñ ko woy je pense que noonu la ko waxee te moom it noonu la ma ko waxee te noonu la continuer aussi ay action waaw nekkul ne affaire woy lañ seq seqatuñu woy mbokk lañ seq bu ma demoon ba wayatuma ko làmb sax mbokk lay doon waaw. si ay Boucar loo koy wax si séeréer. <laughs> waaw yaa mbay ak maa may jaabang Boucar. naa naa naa koy. i nga xay o nitel njom te ref ka andoona yee daanaka i mbaale i musiranonga and no njom o kiigim njom a gima njom a refo ndeɓanonga nitel njom kaaga wo xare fi'aana wo a ke ta fi'aanam a roog o yaal a paax a paax a paax Euh, dako sim waajures aussi a paax to dako laya den de ndak a ñaananaam rek i kan kontaan teen taxnan kontaan teen giigim wiin we na ngima a maya mi moƴu neew teen o ɗeetanga aussi mi moƴu waaga ɗar teen parce que mi waagiim mi jangaam a jang bo ndiik mi waagiim kam janga bo ndiik to na ɗat école ten refum bo to dara wiin we mbuganaam a qoox den refee galaaj refee bayre refee tus roog fi'un to mi kaam dame o yaaloxe ten fi'un axa o teno xar jego ka layanona oxe notuma njom ne oxe notama gidman rek bo a paam roog to a felanga roog njomum nene xana jeg ka te fogeerna parce que kem leya kam layan soom to rooga tax aussi nu tax bugna teen na adna xana jegin to xana fadma a felanga roog mu promoteur a fodna xana fadma a felanga roog jak i nga ta ref o kiino xa andoona yee a maya ken yoona a yoona le miñ to a mos kaaga xar war waago lay teen ngor rek parce nu ngor fondo ma na pankan to keke ngor fondo un to ngorna pankan fi'aam i ndax eh, refe affaire am rek gari jalanaam ka ta to roog tax to mi andaam ka kana buganaam a xooxum to roog tax parce que mayu a layani fa mi a xooyaxam a yed'axam mayu mayu aussi ka andoona yee in fo ten a ref fa roog ina o yaaloxe waasuma den o yaaloxe jegu ndabid i naan ta rabda den Babacar damay occasionné aussi fans club bi ndax gis nga ñi dañoo defar ay tiset dañ maa defal fan club fans club bi ki ko créé Ablaye tudd Ablaye fay bi mu koy créé bi mu nekkee ci xelam damaa toog ba mu woo ma ne ma man de damaa buggoon def benn affaire ma ne ko ah mu ne ma damaa bëggoon def fan club euh, tijjee ko par WhatsApp ma ne ko loolu amul benn problème ma woo su ma kee toog taxaw umi bi ma woowee umi Euh, woo euh, Siyaaka yaa ngi dégg na leen daa am koo xam ne daa bëgg a def fans club fan club bi yàggut mais car macha allah yal na yàlla xeb dolli yàlla laa leen bàyyi aussi Mbayang Fall aussi mooy seen mag moom it daa ñëw rek uuf leen di defar yàlla laa leen bàyyi ñoom ñëpp yàlla yàlla moom moom fay yàlla na leen yàlla fay ci fay yi gën nag. Babacar ndiki Mbayang okorof okorof coole maya lool ndiki wo xarulay kan no xarulay ka sax wiin we da mbaag da pour ndeer waaw wiin we anda ye kem layka wiin we ne coowle mayanga a waaga ref peut être no wiin we yo ndaa ken ñowa nderes fo o kores nderes fo o ten a ref mais wiin we rumeur ke waage ñak i o nuuna laya a refanga paax i mbogin a refanga ponu lasaaxuma ten waaw léegi ba ba moom lu muy non bés na wax ak waa Lutte TV am na lu mu a wax waa Lutte TV Mbaye looy looy wax waa Lutte TV parce que gars sax ñu ngi naan yéen Mbaye ngeen faral yow loo ñuy wax. du far du far Babacar yàllaa koy def yàllaa ma booleeg ñoo yéen comme ni ma booleeg nit ñi loolu la rek mais du far waaw li ma leen di wax di leen di gërëm rek waxoon naa ko Mbour euh, seen Lutte TV point com bi yal na doon ay télé télé ñu dégg leen partout dans le monde merci. <laughs> Jackson moom yaakaar naa tey. bu ñu xamee Mbayang wala ñu bëri bu ñu ko xamee dafa mel ni ci Jax lañ ko xamee Jax loolu yaakaar naa lu am la wala déet. waaw non ah, ah, man ak Mbayang eh, wax na la ki ñu boole mais da ngay wax ne yàlla moo ñu boole eh, yàlla na ku mu boole eh, dañuy ñaan yàlla mu yàgg ba kenn suul moromam yàlla na yéex amin Jax mu mel ni tey Mbayang tudd nañ ko drapeau Jax tey lan la yëg. li ma yëg mënu ma ko exprime mënu ma ko exprimer ndax euh, Doudou ñaan mooy suma frère ndax euh, am nañu ma bokkal ndey ak baay mais moom Doudou ñaan li may yëg-yëg bi ma am ci moom yëg yëg-yëg boobu aw ma ko ci ñu ma bokkal ndey ak baay dégg nga fi may waxee donc Doudou ñaan bu demee bay honoré Mbayang Loum kooku mënuñu am lu ko gën a rëy lii nag. tàngalu la rek du dara man xam ngeen samay affaire gis nga bu déwénee 5 millions laa koy tegal Iba Mar deuxième édition. jàkk sa nga ne bu déwénee looy tegal Mbayang Lo moom laa bëgg a dégg waxal ñu dégg la. fan neexee laa wax de. fa mu neexee. waaw laa koy tegalee 5 millions. muy deuxième édition drapeau Mbayang Loum bu soobee yàlla yàlla nañu yàlla may fekkee ak tal man maa wax loolu tey. Jax nag du la bàyyi te laajuma la ci lutte avec frappe Jax kañ lay ñëwaat. le 18 mars incha allah. diggante kan ak Jet Li Bébé Saloum. Ngel Jon ñaari yaar. Nokia Papa Boy Djiné. këll gi ak këll gi ak kan la. këll gi ak Kaaw Gourdin. Kaaw Gourdin. Ah. mais Jax pato policier. day ñëw ci biir. ak teg choc ak teg choc. Ah, ah. bés waa Lutte TV am nañ combat big pato suñu mbër la. bi ngeen di gis Ibamar le 18. Karo bu soobee yàlla. amagul Ibamar ren. bu leen ko rate nag. te dama bëgg ngeen liggéey si. préparation bu jaar yoon. gis naa li ngeen di defal gars yi. maa ngi yéen la woon nag ca njëlbeen ba. bëre simple bi kañ la. le avril 5 Iba Mar rek man foofu la xaj xajuma fii. dak naa nuun no simnole wona jam a a roog a paax a paax waaw i mbuganga o ndik rek wo ke leyoona ndiiki na wolof daanaka rek ndax dolwa fo artiste ndax a yooɓa non yooɓee koy yooɓee yaam anda o ten o a baftanga mene xane feeto xay maana to wo o ref Dakar o ten o te refa koɓale a ɗoma ɗom trop mais ten o euh, daal mbugir a xes bo pare o témoignage fum waago fi'in a mbayang lum fe andoona yee o teef o kiin o paax a refu o kiin oxa andoona a bata fi'a xana tagwaam bala ta fi'a ku ta waagna fi'a bata fi'a te dara xana tagwaam iyo i mba daal e mbayang lum daal a nananang daal na kadu a a nananaxam i layange roog a tax rek o kiin oxa nananaxam a refu malay fe koy a maya lool ndo wiin we fansi anda xaro ɓat ka rek yiif lay wiin we rek eh, Euh, ngimo ndoga roog rek ram roog o ten na fi'a o kiin ta xew un jour viendra xana mos a xewi kaaga te o lay ke fop kaaga taxu affaire jalousie ne rek a ref ref to kiin gu ta roog ci ino ten im ande ange fo mbayang te jig te jigna ande ange fo me a jig te jigna kon koy fat ngima roog rek kaaga soom a refu waaw ba tey Adrien rek lamb ji jeex na soxna si ñu lay ziar delloo ziar bi maam Jaara maam jaar tey lu la indi woon mu ñëwoon seetaan si làmb bi. drapeau Mbayang Loum. moo ma indi. loo seex ak Mbayang. sama yaay la maa ko yaayoo. waaw maa ko yaayoo dama ko bëgg sama xol. waaw. yow séeréer nga. waaw séeréer la may maam jaara bu ngel joon ah, maam jaara bu ngunjaan bu ngel joon waaw may maam jaara bu ngunjaan bu ngel joon waaw waaw looy wax waa ngunjaan ci séeréer waaw di leen ñaanal rek ñu pare combat bi ñu ñëw la 18 mars dafa am combat du ñaanal ñëpp di wax ñëpp daal nañ génn jàpp si combat bi waa ngunjaan ñëpp mag ndaw xele ñëpp wuñ kenn dañ bëgg mu génn jàpp ci combat bi ñu daan ñaari yaar si seconde loolu rek laay bëgg léegi nag yow yaa nekkal li TV fële ca ngunjaan waaw kon gars yi dégg ngeen Boucar Ndour a ngi nii Babacar a ngi nii Ibrahima a ngi nële Lamine nga sa kër ga Maam Jaara a ngi nii bu Lit TV kii tey bës jëlal lii Maam Jaara non siggi ba non Baba Maam Jaara mu ngal jon waaw Maam Jaara mu ngal jon waa mbokk yi nag yéen ñi doon suivre luttetv.com tey dimanche 4 février 2018 lii lañ leen fi jëlale woon drapeau Mbayang Loum première édition ak Djilass production 500000 Mamadou Seck jël ko ci kaw Alex Babacar moo nekkoon si kaddu gi tey ci wàllu wolof bi waaye ci séréer bi àndoon ci ak Boucar Ndour si caméra bi nag Ibrahima Faye wala boog bu la neexee nga ne bés Boucar moo nekkoon. waaw waaw waaw lay nuyu di la bëggee waaw foog rek comme ni nga utoon rek xëy na arène Adrien Senghor xëy def dimanche 4 février tare au drapeau Mbayang Loum anda taref njom na andoona yee vraiment waaw i ngaro mene koy Lutte TV a gar mene xaye a lala nuun ke andoona yee xaye ten ref cosaan ke ñoweena meen waaw njom ne koy oxe andoona yee ten ref ten Alex ndeysaan ten moƴu ñak final fe waaw Mamadou Mamadou Seck a maafin mhm. waaw me koy na arna Adrien daanaka a tasata waaw a tasata koy in way in way a njal nuun we andoona yee xaye gan suivre a Lutte TV njoka nuun a njal a paax andna nuun koy taxu i ndef meen waaw jaajëf Boucar léegi nag xam nga may waxam dañuy dellu siwaat du yàgg jax war na yóbbu Iba Mar Diop xaas bu bëri waaye ngeen tople Lutte TV point com ak lamb ji